Toujours dans votre acte du jour de ce 11 octobre 2024 alliance pour la république escroquerie pour public public, ñu convoqué

amul lenn luñ ma mën a reprocher loo xamante ne mënuma ci indi réponse ça tu as ma parole et je parle sous le contrôle des Sénégalais je te dis que ça c'est un excès de zèle une mauvaise foi et ça m'a porté préjudice et à mon honorabilité tu comprends et je suis offusqué et lu ko waral politique mais mun a te lu gën a nag metti nag mooy ñi koy def ñoom ñoo waxoon ñoom ñoo set ñoom ñoo waxoon ñi ñee ngi dal seen kaw ñoom ñoo waxoon ñoom ñoo mën jox nañ leen ko le ministère de la microfinance may mun a dis-moi ban acte la posé depuis lors lu dul poursuivre jéegi Alioune Dione talu dara. ay may ma tuuti Alioune Dione ñëw na fii toog eh, na li mu def 3 mois. 3 mois amul benn ministre bu ko def. xoolal Aïda Mbodj lañ koy fete fete Aïda Mbodj lay xeexal Aïda Mbodj da koy fete fii ñëpp teg seen bët ci Bambey gii man duma bokk ci boobu combat.

moo ma ma bu Alioune Dione peut-être que en tant que ministre ñu xol sa gestion mu japp ne amna luñ ci wara a il est non il est dans son bon droit. waxuma batay tey il est dans son il est dans son bon droit. waaw mu ne kat li nañu dem ci yoon. ñu leeral ko excès de zèle def ci am. ñu leeral ko man maintenant il y a des actes qui ont été posés. voilà ça ne s'explique ça, ça, ça ne s'explique pas. mais. qualifié ko qu'est-ce que qu'est-ce que sa promotion politique a à voir avec euh, cette affaire-là Mais Mouna, sa Bo promotion politique. politique. Lola, sa promotion politique, c'est quoi ah. Tuer les adversaires Nous avons la contradiction. Mais Mouna, quand on va passer, nous avons contradiction. Quand on a commencé à dire que Ousmane Sonko, nous avons vu que nous avons débat. nga woote déjà si gouvernement toog trois ministres journalistes les positions si le Sénégal ce ni c'est pas à l'ordre du jour il est à l'image de son responsable politique Mom ne daf ko wax waxat ko moko ubbi que wax wax ni rapport direction ci wax ci sama loxo DPS wax plainte pour diffamation wax. porter plainte pour diffamation parce que xam en matière de diffamation le média est auteur principal. Ah, kon non dawuma deuxième kon nañ waxtaan ci ndànk ci suuf. j'ai été à la cave gis naa cave bi gis naa cave bi. dafa xaw ba ba ba lañ lay tegal. <laughs> xam nga lan moo metti Sénégal instant bi euh. mooy moom mën na ma tëjlu waaye man mënu ko tëjlu xam nga lu tax haute cour de justice amul Sénégal te procureur mënul convoquer ministre et c'est dommage. c'est dommage mais ñu convoqué ko pour lan lu mu def dañ koy. waaw loolu moo tax man su ma waxee. Hmm. yow mën nga maa yemale waaye moom bu waxee. mbaa muy def kenn mënu ko yemale. ah non man comme que da nga ñëw sama plateau. Euh, donc dama lay kii. parce que waaw man tam damay wax sénégalais rek li am. li am mooy moom mën na dal sama kaw ndax man aw ma malaanu kiraay waaye moom am na malaanu kiraay. ndax haute cour de justice amul Sénégal te tas nañ suñu assemblée nationale moo tax suñu taxawee di wax ay waxu Mame Mbaye Niang di wax waxu waxu Ablaye Seydou Sow di wax waxu président Macky Sall ku fi ñëw lay tëj dafa jaaxal il faut qu'on parle aux Sénégalais ñu xippi seen bët. ñu wax leen lu xew mais dem lu xew incha allah. ci convocation bi 9h. am nga ci ay appréhension am nga yaakaar ne le dossier va être classé sans suite sama valise defar naa ko yaa 10 jours valise billahi lazi la ilaha illa huwa kon ñoo ko déggandoo jéegi Diop bu mu jàkkaarloog Maimouna veyu convocation fofu, ca dig Bala ñu koy teg li nga xamante Noko mooy garde à vue xamal na ni ko gars di waxee ragal du jéegi ray moom dafa ne ragalu mala escroquerie bi ñuy ci ni luñ ko jaaxal malgré bi mu demee ba foofu dañ ko daal di garde à en tout cas muy lu doy waar moom mii directrice promotion de l'économie sociale solidaire jéegi Djob ginnaaw bi ko placé en garde à vue dembu ci alxames bi ci la ñi nga xamante moy division des investigations criminelles ginnaw interrogatoire am nag lépp loo xamante ne daal présenté na ko nga xamante dal jamono ji ci ay preuves tay ji dinañ ko djébal ki nga xamante d'Al, moy procureur de la république Ibrahima Ndoye ce changement de programme ginnaw nak liñ koy topé manam moy escroquerie sur des deniers publics lu jaaxal sénégalais nak som biñ doon wax manam 38 millions la mais ki di avocat di maître El Hadji bu mu génnee dafa né 400000 francs lañu topé toppee djop pour escroquerie dañu jogé ci 38 millions wacc ci 400 mille dañ koy topé pour escroquerie motax ñu def ko garde à vie su amul changement nak tay ji dinañ ko jébbal procureur ñu xol Ibrahima Ndoye lan lay décider ci li nga xamante moy mooy mais mom Diégui Diop xamone na ni ko tollu 15 mënuñu ko ko topé manam dañ ko bëgg jaay doole acharnement ndax té dafa am ay position yo xamante andul ak li nga xamante moy nouveau régime bi il y ko manifester li nga appartenance politique ci ki nga xamanteni moy APR ci Macky Sall nouveau régime bi mënul supporter motax ñuy wut yoon bu le ko fa nga directeur bi ko fa di Aline Dion dafa acharné wu ci kalam di yëkëti ay en tout cas qui di na nañ ko def à vie. mi ngi division des investigations criminelles tay nak lañ ko procureur Ibrahima su amul en tout cas doyna